ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaa tax duma di fàtt di ko waaw oui en segam ne na la mbokk ñëwoon démb salaamaaleykum tey jii nag dama am euh, invité bu nga xamee ni actualité bi moo ko indi xam nga bu amee finale coupe d'Europe euh, ma ci dégg Real Madrid ak Atlético de Madrid ñu nekk ñaari écuries yi mag pas seulement en Espagne mais dans le monde rax ci dolli nag pour la première fois ñaari équipes yi bokk benn ville di finale coupe d'Europe gis nañu ñaari équipes yi bokk dëkk waaw comme diggante Inter de Milan Milan AC ñu bokk dëkk mais ñu bokk benn ville di final coupe d'Europe amagul woon mais comme footballu Sénégal dafa yàgg barkeel mais man ni Espagne sénégalais yi barewuñ fa léegi lañ fay dégg ñoom Pape Kouli mais am na sénégalais yu fa nekkoon waaw Limamou Mbengue rax ci dolli Limamou Mbengue mii sénégalais dafa jaar ci ñaari écurie yi dafa jaar Real Madrid dafa jaar Atlético de Madrid. tey jii ñooy ñaari grosses écuries yi à Madrid et peut-être même en Espagne et dans le monde mais ma ni kon damay seet Limamou Mbaye nga war na nekk Sénégal ma làmbatu ko ñu ne ma Limamou ngi ma ne que Limamou foog nga ñëw ci émission bi Sénégalais yi xam fi nga jaar li nga def ah parce que Atlético Madrid Real Madrid ku fa jaar dootoo footballeur bu ndaw léegi Limamou dama lay bay nga présenté wu nuyu euh, euh, téléspectateur u euh, Futurs Médias ak yu ñëwoon demb ma soog ak yow rapidement ci waxtaan wi ñu fi dajale tey. d' bon avant tout maa leen remercier ci ci programme bi bon di leen xamal ni maa ngi leen remercier bu baax chance opportunité bi ngeen ma jox d' avoir participé programme d' avoir eu ce privilège de participer à ce programme di leen remercier bu baax a baax. Mhm. voilà alors Limamou Mbengue moo nekk nii jaar Real Madrid jaar Atlético de Madrid euh, Limamou naka la loolu ñëwee. d'abord naka nga demee naka nga demee Espagne ba ba jaar Atlético ak Real. bon xam nga sama dem Espagne man j'étais maa ngi woon fii a ci Asdiag moo ma doon moo ma doon tàggat. Mhm. j'étais avec Siré Dia. ah d'accord Pape Siré Dia euh, actuel capitaine du Jaraaf. oui ñoo commencé noonu depuis euh, euh, Benjamin Jaraaf. Mhm. Poussin Benjamin. Mhm. donc bi ñu nee ba nekk cadet nag ci la dem Espagne en 1995. 95 waaw donc ma demee bon j'ai parti dama dem kenn yóbbuwuma par exemple benn ménagère yóbbuwuma benn club yóbbuwuma. oui man maa jël sama carte de Jaraaf. après dem tenter sama chance. Mm-hmm. ma demee j'ai commencé avec l'Atlético Madrid cadet en 1995. moom defee ay tests yu durs yu métti franchement donc après ci lañ ma intégré seen centre de formation. Mm-hmm. mais centre de formation intégré c' était xam nga moment yooyu ak moment yi c' est diamétralement opposé. Mm-hmm. presse yu woon léegi presse yu na bon avant presse yu bëriwul woon comme léegi. léegi parce que bu njëkk mën nga football yenn club yenn niveau yi sax nit ñi te nit ñi dañ lay xam. oui oui waaw oui oui. alors nga nekkoon ci diggante Atlético Madrid ak Real Madrid am na sax benn moment bu nga xam ne am na ci polémique bu am. waaw ba xëccoo am ci diggante ñaari équipe yi Atlético ak Real. Mm. qu'est-ce qui s'était passé ak euh, lu indi woon loolu xëccoo bi. bon parce que comme ba ma ñëwee en quatre-vingt-quinze donc ñun dañuy football ay championnat cadets dañuy football ay tournois xam ne Real Madrid day participer et puis dirigeant Real xamoon nañ ma. ci lañ ma commencé commencé suivre. donc man en 97. bi Espagne di jël coupe du monde junior ak Casillas ak ak Xavi ak Iniesta ñi jël coupe du monde tey en 97 bi jël Ghana boo man j'étais le meilleur buteur en Espagne avec 37 buts. donc boobu nag la ma Real Madrid Del Bosque commencé suivre. léegi en ñu ne ma ma yor sama carte liberté ñu ne ma boo amee carte liberté boo ñëwee dañ lay jël Real Madrid. donc en 99 99 1999 laa intégré au Real de Madrid. oui oui alors nga dem Real Madrid euh, après nga dem nga passé Atlético. non ba jógee Real Madrid ma jógee Atlético Madrid ma jógee ne fait 5 ans sans formation. Mhm. ci Real Madrid laa nekkee professionnel. waaw en 99. oui bi Central jël dugal Real Madrid léegi bi ñëwee ba année prochaine léegi ci la Atlético Madrid brandir droit de formation. Mhm. parce que le président de Madrid xamoon na ni am na benn scandale bu donc moom bi mu laajte ne ko Limaam mi ngi Atlético Madrid donc il fallait ñu récupérer ma coûte à coûte parce que est boobu génnee da juge bi daan leen kii nan la mën a jaree 3 milliards CFA ba koy di football Real Madrid parce que àndaal bi ñoom bon ñu man maa dem te def test léegi ñoo commencé nekk di dugal léegi président bi moom moo ne moom mi nga jëndee 3 milliards man ak Lawal ak Maxi un brésilien mhm. léegi xaalis boobu ko def ko ci poche am mhm. donc scandale yooyu nag moom xamoon nañ dina génn mhm. loolu tax ñoom bi ñu ñëwee ñu laaj droit de formation porter plainte waa Real Madrid au niveau de la fédération espagnole de football euh, au niveau de la FIFA léegi ci leen FIFA jox raison ak fédération espagnole de football loolu moo indi sama delluwaat Atlético Madrid en 2000 en 2000 ah da fa delluwaat encore continuer fa jusqu'à 2004 mhm. léegi 2004 nag ci dama commencé am euh, après amoon nañu ay Badajoz amoon nañu ay deuxième division amoon nañu ay mais c'était noonu la demee euh, temps Euh, footballeur yu mag yow bokkaloon euh, groupe. waaw euh, yëg naa ni Torres par exemple bokk bokkoon ngeen groupe. bokkoon Fernando Torres Torres ak Gabi l' actuel capitaine de l' Atlético Madrid. Gabi ak Molo Burgos mooy adjoint Simone. parce que Simone mii tey nekk entraîneur wu Atlético Madrid. Mhm. moom bi muy football di gagné doublé bi. Mhm. coupe ak championnat. Mhm. man boobu cadre laa jour boobu ñuy gagné doublé man maa doon ramassé. ramasseur la ñu man ak Gabi mii tey. ah d' accord kon Limamou Euh, bi muy ñëw nag ci émission bi euh, dama ko ni foog nga indaale sa ay journaux mu nekk nag loo xam ni dañ ciy waxtaan moom ngeen jànnool nii euh, mu def cadet ak junior en Espagne ci diggante Atlético de Madrid ak Real Madrid at mi moo nekk le meilleur buteur du championnat junior ca Espagne dugal na une trentaine de buts équipe yu bare ràññee ko jamono bi sax. dafa teeylu nde dañ ko doon waaj jox nationalité espagnole mu bañ ci teel dugg limaam mu meeg mi may dalal moo nekk ni euh, ci centre de formation période bi junior la mu nekkoon nag ku nga xam ni même à l'entraînement gars yi dañ ko daan euh, euh, topp surtout jamono ji nga xam ni médiatisé woon na trop man mi biñ ma ko teelee yëgal ni am na sénégalais bu fa nekk junior fële en Espagne e ma ni kii daal dañuy bàyyi rek ba mu ñor ñu daal di ko yëgal gaañ yi bii nag booba temps ñëwam en équipe nationale jotagul parce que dana ñëw yi en équipe nationale. mu nekkoon nag euh, ku ñu médiatiser woon surtout période bi nga xam ni gars yi ñu ngi koy xëccoo ci diggante Real ak Atlético de Madrid mu wóor leen ni. Euh, kii euh, c'est un futur grand gis nga photo boobu romboon d'ailleurs bi ma leen jëkk wan euh, Ibrahima est-ce que mën nga ma delloo si photo bi ma leen jëkkoon wan bu sol maillot yi waaw gis nga photo bi mi ngi ci ànd ak Torres Torres mi nga xame ni mujj na fi nekk champion du monde ak Espagne bërki démb ak Chelsea mu def fi ay kirama xam nga ku nekk coéquipier ñooñu ñu nekk nag comme on dit euh, sous sa euh, di nga nekk un futur grand kon ba tey ñu ànd ak limamu euh, ci al ci album photom alors fii espagnol yi dañ ko wutaloon diminutif dañ daan bind rek lima lima moom ngeen janool nii euh, mu nekkoon nag ku nga xamee ni <laughs> wax dëgg yàlla il était promu à un très très grand avenir moo indi d'ailleurs dès la catégorie junior ngeen gis ko nii ah muy wàcc intégré euh, senior yi mu nekkoon ku médiatisé ba tey euh, fii booba temps mu ngi changé nag milieu parce que Real Madrid abaloon nañ ko benn équipe bu ñuy wax Badajoz moo nekkoon nii euh, ci mayo Badajoz la nekk mu nekk fa def fa saison bu rëy rëy avant muy dellu Atlético Madrid ba tey Limaamu euh, mu nekkoon nag période bi nga xamee ni dafa war a déclassé soreetul équipe première mais gaañi ba léegi dañ ko doon nëbb Euh, sénégalais yi parce que bëgguñu woon ñu teel ko xam parce que ñoom dañ doon bañ sénégalais yi teel ko xam dogale ko ci yoonu équipe bu Espagne bi nga xamee ni bëggoon nañ ko ci dugal. Mhm. alors entre temps ñëw nga Sénégal. Mhm. ba jot fi jouer équipe nationale sous sous sous Ablaye Sarr. waaw joué naa équipe nationale euh, c' était en Gambie. en Gambie après ma blessé 15 premières ci la am benn blessure cheville. waaw après ma demee c' était grave quoi. ah d' ci la récupéré ko ñu faj ko après da nga mujj am euh, nationalité espagnole. am nationalité espagnole donc nationalité espagnole boo ko amee bon duñ joxe euh, en Espagne duñ joxe double nationalité benn nationalité nga mën a am. Mhm. même léegi en France je crois que donc euh, ma amee double ma nationalité espagnole donc moo tax intégré équipe nationale bu Sénégal. Mhm. Mm. alors boobu ba léegi après ta carrière tu es resté en contact permanent avec l'Espagne. Mm. Del Bosque. mi mm-hmm. nga xame ni c'est ton père spirituel. Euh, je me rends compte que ci sa reconversion da nga ko sa centre de formation. waaw xam nga dal parce que c'est un c'est un c'est quelqu'un nga xam ni bon dama am beaucoup dama am admiration bu mag ci moom et puis mooy nit koo xam ni daf ma mës a bëgg. ba mhm. nekk Espagne boo demee dañu naan papa Liman bu ñu naan bu ñu ko gisee ci tribune yi suñu sama sama copain joueur dañu am Liman sa papa ñëw na. Mhm. ñuy kaf quoi. Mhm. parce que moom mooy ki ma yóbbu Real Madrid mooy ki moo tax. ginnaaw yàlla ma entraîné joueurs yu mel ni rawul mhm. joueurs mel ni Fernando Hierro joueurs yu mel ni Roberto Carlos joueurs yu mel ni Eto'o joueurs mel ni ak euh, Anelka. Mhm. ginnaaw yàlla moom la. Mhm. ak ay Guti tout ça et cetera. donc ak euh, yëg bi ma yëg tey jékki-jékki toog woo ma ni ma dama koy dégg tout ça ñu am ko léegi. léegi mooy retourné Sénégal nag ma ne léegi bon amoon naa benn projet mooy. créé benn école de football. Mhm. et de essayer de développer le football du Sénégal. parce que ñun football la xam. Mhm. ci lañ am ay diplômes. ci lañ dañoo am licence de formation parce que bul fàtte ni modestie à part je suis le premier sénégalais en Espagne. en Espagne bu génn centre de formation nekk professionnel. oui je suis le premier sénégalais modestie à part bu sol mooy Madrid ak mooy Atlético Madrid. donc kooku dama koy sant yàlla. parce que histoire la. oui c'est pas comme léegi parce que am na loi yu bëri léegi dañ ko dindi parce que à l'époque seen loi mooy deux étrangers non communautaires mu woon fóot bi ak euh, Del Bosque euh, foo ci toll waaw centre Del Bosque bi ma ñëwee Sénégal ma ne léegi damay servir sama pays parce que tamit j'avais des propositions parce que fële am am dañu dañu am ay contacts ak ay anciens joueurs j'avais un ami ma contacté ne ma léegi moom il est ci le président Yaya Jammeh mm-hmm. pour ñu toog si ak ñoom benn contrat cinq ans boo xam ne man maa yor mhm. que man dama war a servir Sénégal. ah d'accord donc ci laa ñëw ne léegi damay ibbi centre de formation tuddee ko Del Bosque. Mhm. ko tuddee Del bon moom da ko rafetlu. si dama léegi lépp loo soxla wala ngeen bëgg. man je mhm. suis prêt à te soutenir dans tous les sens. Euh, Del Bosque. Del Bosque si boppam. Euh, ñëwagul ñëwagul seet sa école bi. non ñëwagul mais avant centre bi moom bëggoon na ñëw Sénégal amoon nañ accord bi man waxoon naa ak moom. ba ma léegi ne ma léegi dinaa ñëw 24 heures def fa 48 heures pour yow. Mhm. léegi léegi man da may yónnee benn invitation rek pour fédération espagnole de football moo ñoom fédération espagnole de football moom. Mhm. invitation ci boobu bi mu difficile dama woo Youssou Ndour Youssou Ndour moo ko envoyé. ah Youssou Ndour ci boppam je le salue de passage. waaw Youssou Ndour laa woo Espagne. ne ko léegi dama del basket laa bëgg indi Sénégal pour image du football Sénégal. Mhm. léegi problème invitation lañ soxla mu ne ma loo am benn problème. deux jours après la ma woo téléphone Youssou ci boppam moom woo Espagne Youssou Ndour. ne ma c'est réglé. Mm-hmm. ma woo parce que mu ne ma ñëw na. Mm-hmm. léegi bi ñuy xool euh, commencé xool date ci la émétif amoon la affaire 2012 ah émétif amoon. problème amoon na yooyu. donc man duma ma jël responsabilité di Del Bosque ci. ci ci situation yi amoon fii Sénégal la. moo tax ñu renvoyé ko. oui oui oui oui alors euh, léegi pour ton centre ban appel nga ci nga mën a def euh, d'autant que bon xam nga Del Bosque c'est c'est un label. Mm-hmm. noo gisee centre bi nga xamee ni tey jii turam moo ci moo ci nekk euh, pour peut-être muy lu nga xamee ni dana accessible. Mhm. aux jeunes sénégalais centre bi naka la. centre bi ñun euh, philosophe bi ñu yor mooy ñun xam nga li ma expliqué sànq mooy ñun football dañ ko jàng dañ ko jàng depuis d'abord âge xam nañ ni football du da ji léegi mu sax léegi football projet la loolu da nga koy laaj waa jàmbaar. man ñi jàmbaar référence laa leen def. Mhm. ñooñu man la Masia du football africain laa leen tuddee. xam nga jàmbaar tey boo ko laajee. Mhm. jàmbaar euh, créé na jàmbaar avant muy football benn compétition jot na jaay joueurs yoo xam ni compétir jot soxla compétir. jàmbaar après avec tous ces milliards. Mhm. toog na dix ans mi ngi doog a jël championnat. donc football projet la. ñun li projet bu ñor mooy yàqamtiwuñu dañuy liggéey léegi liggéey bi ñuy liggéey nag man li may profité mooy damay ñaan fédération sénégalaise de football tamit ñu yaatal ñu affaire Parce qu'on ne peut pas venir au Sénégal ici pour, pour participer sur le développement du football du, du Sénégal. Il y a des par exemple, affiliation, pour me compétir. Oui. C'est compliqué. Et nous avons des propositions, par exemple, de la Gambie, à Guinée équatoriale, où les anciens joueurs qui ont football. ñooñu dañoo football ñun championnat Espagne. Mhm. dañ lay wax toujours nga ñëw fii dugg na fii may lancer j'en profite Euh, am na fu ñu war a dem dañu war a dem rencontrer Iniesta Casilla ak groupe Futurs Médias. donc loolu bëggoon naa ci boole fédération Sénégal de football. mais dem